Duudu ndeysaan doomu ndey Ada ngi noonu Ada mu ngi noonu ndeysaan champion la waaw gars ay dara mais message bi rafet na jaajëf ajuma lay julli ji vendredi maa bi lay julli ji masaalik lay julle masaalik lay julle dèjà bi ngi noonu gaa yaa ngi noonu Ada Fass mi ngi di dem julli ji juma c'est lii la xaar si moom ak ay xaritam. parce que man Dero sa xol moo la sonal baay. dégg nga ma parce que la demee nag sa xol moo la sonal mais rek. ngi ko am. jàmbaar nga ah. seen am di jàmm. waaw ñu ngi di bëggee ñëpp di wax ne onze bila bismillah ina yàlla barke borom Touba. waaw affaire yi munut a ñàkk si ñun ndax nit deret dafa for ñun Fass la ñuy représenté ñun dawuñu leneen buñ déggee lu ne ak luñ mënti dégg ñun dinañ xam ne ñun la mais li ci des ki nga xamante ni ñun moom lañ nekkal yàlla def ko suñu biir mënuñu koo weddi mënuñu ko dind si ñun moom moo ñuy jàppale dimbale ñu ba lépp loo xamante ni nit ñaa ngi koy ŋawte ŋawtee ci biti mm-hmm. bii ni nekk dernier boo xamante ni dootuñu dégg aada ci problème mu leneen problème bu ñuy waxaat xam nga lan la war a doon mm-hmm. aada dem na làmb def na fa lu fa kenn musta def daan na mbër bi jël bu leer ñun loolu lañuy ñaan si moom mm-hmm. mais amul leneen loo xamante ni nii dinañ ko jël di ko teg ci kaw nit ñi wala ñu koy teg ci kaw keneen xarit nag xarit la ànd ànd la mais moom moo ñuy jàppale jàppale boppam metti na lool waaw metti na lool gars yi nii nii ay saamale nii ay ceer nii mhm. war na borom Tuubaa dañoo sonn amaana ñun ñii sax ñun ñu war ñun ay moom mais dañuy dégg lu ne man Fass ma laa nekk fa laa dëkk école lee lettres laa ne mais man ak moom dañuy déggoo wel-wel damay toog ay nit naan ma seen seen mbër bi dal wax ak moom man leen bàyyi leen ko ku ci nekk am na ci loo munti nekk ci lu munti doon mhm. mais ñun yooyu ñuy dégg moom dégg ko bu ko déggee nii ah TikTok sax amu ko day capté ci yëfu jàmbur di ko dugal STM kon xam nga ni kooku kon tey am na loo xam muñunu yàlla la koo xamul nag xamoo ko mooy li Thierre wax léegi léegi mais nan ñaan yàlla li nekk dernier loo xamante ni Ada Fass problème la ñuy wax ci moom ñun fas lañ am Fass la ñuy représenté képp koo xamante nii nag yaa ngi ko doon ñaanal yàlla dimbali ko génnee ko mm-hmm. ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ne sa ñaan si na képp koo xamante ni noonu sax amul mm-hmm. mais jéppi day am noonu amul mais jépp day am boo dégloo chroniqueur yi ku ciy wax sax man mun naa leen a balaame ñoom chroniqueur yi bu nekkee ci làmb ak lu làmb lañ ne nit bu nekkee ci dara avocat dañuy seetaan procureur dañuy seetaan juge dañuy seetaan bu nekkee ci dara da nga war a mun a bàyyi ba nit ki génn li ngay wax nga wax ko mais doo toog tele wala nga toog taal sa média mu neex nga naan Ada Fass dafa dëgër bopp lii bett ma woon lii laa loolu dafa mën a ñàkk dañoo war a defar ñun waruñu yàq nañ wax wax ju rafet bu affaire demee ba génn ku toog boo waxee lu la saf boobu béy wéy na mbuus boobu génn na ci loxo yoon mais tey nga wax loo xamante nii yoon après day toog di ko seetaan ne kii kon dafa yab waa askan bi wala dafa yab ay dëkkandoo aada yabuñu natt suñu borom day am ci jaam natt bi nii mu amee nag yàlla na fi am. mu xam li ko war. ñu continuer euh, jël ko moom di am di jàmm xarit ak soppe ci Ada Fass Samboulin ñu ngi lay nuyu di la ziar tey mbégte la bi Ada génnee. waaw ñu leen fay bu baax a ko génnee yéen ñi nga xamante ni yéen a ko doon gunge tey tribunal bi mu génnee lakk ngeen yëg tey. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek mooy àdduna mooy la wax rek ku nekk sa jaar jaar ñun xamuñu ëllëg lu ñuy dal xam nga. te nit boo koy yéene yéene ko jàmm quoi waaw amaa dañuy sant yàlla bu baax boo xam nga xëy na li desee am la woon di mu war a jaar mais bu toogee dëgg-dëgg ay nitam doo non dootul delluwaat seen si. sam la polémique bi bari na ci yéen yi nga xamante ni yéen dëkk ak aada naan aada ñenn ñi duñ ko wax dëgg euh, foo gis. Euh, Aïdara gis nañ nga taxaw ak aada lan ngeen waxtaan yéen ñaar. waa mbër li ñu waxtaan man ak moom taxaw nañ léegi man ko mbër. Euh, santal yàlla rek maanaam nga après nga gën a xoolaat sa taxawaay nee naa ko champion nga da nga nekk ci yoon te dafa am am ñoo xam ne am ci ma doon champion la du dugg ci vie privée jàmbur ci cadre làmb rek laay wax te mbër yëpp laa fi yemale ma ne ko sama teewaay fii nii maanaam mooy teewaayu mbër yëpp ak teewaayu amateur yëpp beneen mbër bu fi amoon rek ma ne ko boo xool boo génn comme génn nit xool dafa raata sa taxawaay fonk say entraînement rek loolu rek moytu yenn tamit te jàpp tamit say nit ndax boo nekkee ci problème maanaam di nga ci gis say nit di nga ci gis ñoo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne la ko sa problème boo a fonk euh, mais yow en tant que chroniqueur nangu nga ni Ada mooy El Hadj Diouf yàlla yàlla yàlla yàlla da koy def moom yàlla moo ko may lii quoi dafa am benn bu topp ci gën a moom na xam ne am na ñoo xam ne ñoo ko ëppoon tur tey maanaam mooy loolu na jéem a roy ci ñoom rek bàyyi yenn yi te xam ne yàlla may na ko loo xam ne tey Fass mi ngi door am biir Fass nekk phénomène ñëw fël boo amee combat mbooloo topp la kon loolu boo ko xamee rek war nga mën a xam bu baax fi ngay teg sa tànk yor esprit de mbër quoi mais champion la. yaa noonu la mais kontaan ci yéen site yi ah. gars nan abonné ci site ah gis naa taxawaay bi du surtout yow. parce hmm. yàlla yàlla na yàlla defal jàmm kaay. bilaay Euh, jër ngeen jëf Thierre ñu ngi lay nuyu di la ziar di ngi delloo ziar di delloo nuyoo bi. Mhm. di ko delloo ñëpp. di ko delloo suñu mbokk yi ak suñu mbokk yi ne ci prison bi. Mhm. di nuyu gaa yëpp mafia bi yëpp. Mhm. tey ñu fekk leen Fass Benteñe ngeen gunge seen xarit seen soppe Ada Fass ma fekk leen tribunal ngeen gunge ko ba ni mu yegsee euh, tey euh, bi ngeen bi mu génnee lakk ngeen yëpp. waaw loolu yàlla rek la. ak yonent bi ak Serigne Touba. ndax nit ki tamit loo mënta gis rek maanaam koo mënta gis si àdduna rek day am jaaruwaay booy bi mën naa nekk tamit lii jaaruwaayam la kenn mënu ci dara aada boo ko xamul rek nga koy jugé mais boo ko jegee nga xam ni kii nitu kersa la lu muy def nii sax du moom leen rek laay ñaan gars yi dañ ko ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér ndax booy bi jàmbaar la ko ah mais tey polémique bi bari na. ci ay problème mu ay boîte tey yéen ñi nga xamante ni yéen a ko jege gars yi jàpp nañ ni yéen du ngeen ko wax dëgg te yéen yéen ay nekk ak moom est-ce que yéen a di def seen wareef chaque jour. loolu moom mooy géej gi am na ndox. Mhm. ndax aada booy duñ ko neexal booy duñ ko raay raayal gars dañ koy wax dëgg de. Mhm. gars dañuy wax ak moom mais daa fekk na nit tamit nit ku ne nit nga mën a doon. Mhm. duñ la topp ba sa biir néeg. duñ la topp tamit ba nga yëg ci sa kaw lal di tëdd nelaw nga bëgg a ak nelaw ak yow sa biir néeg sa néegu soxna ñun nag dañ lay gunge wax ak yow jàppale la boo demee nag ba guddi jot am na loo xamante ne yow boo koy def ñu duñ ko yëg. Mm-hmm. Baye Fall yi tamit duñ ko yëg. ban message nga koy lancé waxtu bi dafa dafa ñoo xooj vendredi bi ban message nga waaw message bu ma koy lancé lenn la ne ko mu toog goxam. Mm-hmm. entraîné nekk si lu mu war a nekk fonk ay nitam. Mm-hmm. topp ay mbokam am loo xamante ne moo ko moom. te da koo war a téye incha allahu rabbi ci barke na Ousmane loolu noonu moom moo ko fa am moom aada aada man damay wax ak moom may dégg mais mosul siggi jàkkaarloog man respecté na ma ku jox nit cër la lu ñu koy conseillé muy lenn mu jàpp gaay yi mm-hmm. bi ñu ko jàppee ba léegi gars yi lekkuñu naanuñu man depuis sa quatre heures du matin ba léegi maa ngi xoole ma yeewu ndekki sax ma ci gars yëpp noonu. am ñu taxawu kon naaj ba yàlla suñu borom def jàmm. kon liggéeyu ndeyam tamit ci la mais na gën a góorgóorlu. am na xam ne ndaw la quoi. am na solo ñu ñëwaat ci kii nga xamante ne mooy xarit ci ba tey ci Ada Fass ñoom ñëpp si suba ba léegi ñu ngi foofu nga xamante ne moo di tribunal gunge seen xarit seen soppe seen am di jàmm. waaw ñu ngi siyaar di bëggee ñëpp di wax ne onze billah bismillah ina yàlla barke borom Touba mm. waaw affaire yi mënut a ñàkk si ñun. ndax nit deret dafa foor ñun Fass la ñuy représenté ñun daw ñu leneen buñ déggee lu ne ak lu luñ mënti dégg ñu dinañ xam ne ñun la mais li ci des ki nga xamante ni ñun moom lañ nekkal yàlla def ko suñu biir mun mënuñu koo weddi mhm. mënuñu ko dind si ñun moom moo ñuy jàppale dimbali ñu ba lépp loo xamante ni nit ñaa ngi koy ŋawte ŋawtee ci biti mm-hmm. bii nii nekk dernier boo xamante nii dootuñu dégg aada ci problème mu leneen problème bu ñuy waxaat xam nga lan la war a doon mm-hmm. aada dem na làmb ja def na fa lu fa kenn musta def daan na mbër bi jël bu leer ñun loolu lañuy ñaan si moom mm-hmm. mais amul leneen loo xamante ni nii